xibaari ñu daal koy dooree ak dëkk bii di Soudan président ba di El njàmbat yi ak ñaxtu ya indi na ko ay jafe-jafe ñu toll na juróomeelu fan yoo xam ne ay ñaxtoo fa am ca Xartum ñu daal di taxaw ca quartier généralu armée ba di sàkku njiitu réew ma ngir mu tekki ndombal tànkam waaye naka yemuñu ca ña ngay woo way takk der ya ngir ñu fekk si leen ca xeex ba mu nekk naka ay jigéen ak i góor ak ay ndaw yu dajaloo ca boobale bërëb ngir ñu jëmmal seeni ñaxtu waaye nag bi yoon di a comme niñ ko defee woon ci manifestation yu mujj ya euh, kenn ci way ñaxtu yooyu yëkkati kàddu ci mbir ma di xam ne nag way takk der yi jamono ji dañoo xam dëgg-dëgg njariñu seen ñaxtu booba la ñaxtu nag danañu ko wéyal ba ba ñuy am li ñu bëgg ñu dem ba dëkk bi di Algérie Abdelkader Benzela euh, dina waa réew ma ne dina fa amal ay jongante njiitu réew yu mucc ayib ci ab discours boo xam ne ma nga doon jàll moom mi nga xam ne moom lañ fa tegal yi ngir mu jiiteegum réew ma ma ngay xam ne ne fekk juróom-ñeent fukki fan euh, dina fa amal ay élection yu mucc ayib tey nak dina samp kuréel gi ñu dénk fànn gu nu mel ginnaaw nag ba ko fa nekkoon di Abdel Aziz Bouteflika bañ ko poussé ngir ngir mu tekki ndombal tànka ci la ko wuutoo mu ay fan yoo xam ne moo ko jiiteegum réew ma fi ak ñu fay amal ay jongante jëm ba Mali IBK di bu Boubacar Keita di na bëgg naa woye procès bi tàmbali woon di yërat sax réew ma gannaaw ay ñaxtu yu ñu fa amaloon ca juróomeelu fan ci avril aw capital ba di Bamako kan wa doon sax lépp loo xam ne jën na ci wàllu kaaraange bu Boubacar Keita dalal na ña nga xam ne nag ñooy kilifay diina ya ak ñeneen ñu fa nekkaloon yenn parti ya ngir lépp rek ñu mën a xoolaat sàtte réew ma mu nekk nag loo xam ne ku wattuwul mu andi fa ak Keba étudiants yi fa nekk te fekk baax ci réewum Congo ñoo doon ñaawlu ngir jot seeni bourse ñu nekk ay étudiants xam ne nag ci wàllum faj la ñuy yëngu di ñaawlu tamit anam yi nga xam ne noonu lay seen dëkkuwaaye mel gannaaw ba ñu ñax gën a fee daal ay takk der ñeent am ci ay gaañu gaañu am ñoo xam ne itam jëm nañ leen a teg loxo bu ñu sukkandikoo nag ci kenn ca ña doon ñaxtu nee nañu juróom benn weer a jotuñu dara waaye itam di ñaawlu pat pataara gi nga xam ne seen kilifa ya nekkee ca Congo jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ñu jeexalee ko ak Libye gannaaw jàppante ya fay am milicia jamono ji ñoo te Tripoli ñeenti fan ci weeru avril ba léegi Khalifa Haftar ak ñi mu àndal doon wéyal seeni cong waaye nag ñu tegoon ba Tripoli di fa nga xam ne fa la siège du gouvernement d'union nationale nekk di communauté internationale ba doon leen jàppale waaye nag lañ ca mën a jàpp mooy li mum ña faatu gën naa yokku ba toll ci ñeent fukki nit ak juróom-ñaar bu ñu sukkandikoo ci OMS jërë ngeen jëf mbokk yi li la ñu indiloon ci xibaar bitim réew